tàmbale na téere bi tudd turu yàlla tabaraka wa taala ndax li xabar ñëw ne mbir mu am solo mu ne suñ ko tuddeewut suñ ko tàmbaleewut ak turu yàlla mu ñàkk barke ñàkk na barke bismillahi arrahmani jiital na allahu ci arrahman ndax allahu tur la rahman melo la mhm, mhm, mhm. ñu ne arrahmaani mooy yërëm bépp mbindéef ci adduniya arrahimi mooy yërëm ku ko wala ay xejjam ci àlaxira ñu ne arrahman hmm? mooy ki nga xam ne mooy xéewale xéewal yu rëy yi te feeñ mm-hmm. arrahim mooy kii xéewali xéewal yu sew yi mm-hmm. kon rahman jiital nañ ko ci rahim ndax rahman moo gën a aam mm-hmm. rahim moo gën a xaas jiital nañ rahman ci rahim ndax rahman yàlla rek lañ koy tuddee rahim nag nañ ko tuddee nit yàlla wax na yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne bil muminina raufur rahim rahmaan ñu ne moo gën a jotal ngir moo gën a bari xaraf te siiga ci yaaram lu mu gën a bari xaraf firi ma gën a yaatu boo ne faala faala nga shadda ko ci la firi mi gën a yaatu ci lu wér. bismillahi rahmaani rahim. wa hmm. oh, sallallahu. Hmm? tàmbalee gim tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim roy na ci yàlla tabaraka wa taala ndax alquran. Hmm? bismillahi rahmaani rahim la tàmbalee. mu ñaareelee wa sallallahu. yal na yàlla dolli xéewal ala sayidina ci suñu sang mm-hmm. am na ñu wax ne sayidu kenn du ko tuddee ko dul yàlla mm. waaye yàlla tudd na sayidu kam ko askanee du yàlla mm. wa sayidan wa xasuuran wa nabiyi am min asaalixina Mm-hmm. muy yonent yàlla yaxya yonent sallallahu alayhi wa sallam xool na Seydina Xasan ne mm-hmm. sama doom ji sang la sang la mm-hmm. yonent ci boppam wax na ne ana sayyidu waladi aadama wala faxra man maay sangu doomu aadama yi Mm-hmm. te puuga réew taxut te puuga réew taxut nag mën nañ cee déggee ñaari yëf mm-hmm. maanaam dama bëgg rek ngeen xam maay kan waaw waaye puuga réewuma mën nañ cee déggee ñaari beneen yëf mm-hmm. mooy su doon puuga réew duma wax loolu ndax loolu puugare newu ci xaw ma dégg nga maam de maanaam bu mhm. taxut puugare wu ma leen ma leen di wax ne maay seen sang dama bëgg rek ngeen xam ku ma do booy defar sa buñ la laajee nga defar sa nga wax fi nga jaar yëpp nga jaar dara lu ci puugare wu boobu ñaareel bi mooy su ma doon puugareew du wax loolu te lay firi. Ah, su ma doon wax loolu ndax su ma nekkee sang rek dafa fekk ma nekk ci seen biir. ma ne ci seen biir. su ma nekkee ca yàlla nag duma nekk sang jaam laay dox. te nekk ci yàlla ci la poogaréew ne waaye nekk ak jaam ñi ban poogaréew ci ne <laughs> ah, <laughs> <laughs> waaw rek waaw su ma doon maanaam nekk sang du poogaréew ci man ndax bu ma nekkee sang rek maa ngi mbindeef yéen allahu akbar te sama poogare nag mooy nekk ak yàlla te su ma nekkee yàlla abdoulay tudd moo tax ma maqaamaam yi nga xam ne ñoom la ko yàlla tuddal ci alquran yëpp abdu la ko ci wooye waaw subhaanallah bi ba mu koy yónnee ne wa innahu lamma qaama abdullahi yaduuhu kaadu yakunuuna alayhi libada ba mu wàccee ci moom alquran ne tabaraka alladi nazala alfurqaana ala abdihi alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba abdu la ko wooye ay yaa ngi wax saar yu ma neex <laughs> tuddee Furqaan de fu ñu ko tuddee damay waaj jooy. wallaay <laughs> ndeysaan. Saar woowu Saar woowu moom ni ma mën man dañ mën moom. wallaay <laughs> wallaay ko dégg rek damay mel ni kuti. est-ce que est-ce que est-ce que est asra bi abdihi waxul bi nabiyihi waxul bi xabibihi waxul bi mustafaahu waxul bi sayidukum waaye bi abdihi wax wante alaaj ibrahima ñas radiallahu anhu ba muy ba muy firi wax jooju ak wax ji imam busiri wax ne lam yamtaxinnaa bima taaciya alcuqulu bihi xirsan calayna falam nartab walam nahimi acyal wara fahmu macnaahu fa laysa yura lilqurbi walbucdi fihi gayra munfaxim maanaam eh. yonantu sallallahu alayhi wa sallam moom xam ko moom lotal nañu waaye lim indi nag lottalut ñu waaw xër gim xër ci ñun moo tax indiwut lu jaaxal xel yi falam nartab walam nahimi waaye moom nag ci boppam moom ayal waraa fahum maanaaw moom kenn mënu koo xam moom waaye lim indi nag lam lam yamtaxinnaa bi ma taayal uqulu bihi xirsan alayna alaaji ibrahima ñes na bi muy joxe misaal mu ne bu yàlla waxoon subhaanalladi asra bi nabiyihi konoon li li dal nasaraan yi mën naa mu dal ñu ndax nit mën naa ñëw bi nabiyihi bu jiitale genn tomb gi rek bu jiitalee benn tomb gi rek muy bi bu kon yàqkat yi mën nañoo dem. ñëw ne yonent bi waaw. ko mën nañoo wàccee noonu waaw ndax. wala ñu wala ñu yokk ci benn balaa noonu muy boo boo ne bi na bi yii. waaw boo jiitalee baagi rek muy bi bu na yii. ci bi na bi yii bu baagi jiitu woon noonu nga rek muy bi bu na yii nit ñëw naa mën naa ñëw ne la ñoom nii lañ jàngee. mu nekk fitna moo tax mu ne lam bi ma taay al uqulu bi lépp loo xam ne buñ ko buñ ca juumee rek mu nekk fitna fexe na ba duñ ca juum allahu akbar xirsan hmm. alayna fa lam nartab wa lam yàlla it ba mu ko rañaanee mu dem ca kaw bu yéegee ko muy miraaj gi hmm. Hmm. rañaan gi moom baytul maqdis la yam miraaj gi nag moo dem ba fu ba fu fu <laughs> waaw àdduna waaw ba fufu amut waaw sa wax na ci buur dane wa bitta tarqaa ilaa an nilta manzilatan min qaabi qawsayni lam tudrak wa lam turami allahu akbar ah. wa bitta rañaan tarqaa di ilaa an nilta ba jot manzilatan jotuwaay wàccuwaay wala yéeguwaay <laughs> maqaama moo xam ne min qaabi qawsayni ci jege yàlla kem koccak ñaari xale ya waaye nag alaaji ibrahima ñas mu ne laysa qurbal makaani fafham maqaali mu du jegeeg barab de déggal sama wax nee du jegeeg barab de ndax foofu barab amu fa <clears throat> déedéet. waaw dem na ba bu naqaree dégg la <laughs> baraw amu fa. <laughs> <laughs> baraw lu naqaree dégg la du du jege barab du baax de. waaw yéen a yonent salaay salaam rocceeku na ci lépp loo xam ne nii amoon na ko ci moom. ba muy dem ci yàlla boo ko rek. yàlla mu mel ni nga barabal yàlla. subhaanahu waaw te yàlla amut barab. yàlla nekk kaana allahu wala makaana ca yàlla. waaw moo tax mu lu naqaree xam moo tax mu naqaree xam na. waaw njiitu yàlla yi ñu ne yonent bi ba mu tarbiya Aliyu ibn Abi Talib ba bëgg a xam ndax yegg naa mu yeggut dafa ne ko kaana allahu wala makaana Aliyu teg ca ne wa huwa al aana ala ma alayhi kaana mu ne ba léegi looloo am Ah, yàlla nekk na te barab amut mu ko ba léegi loolo ane waaw ah, ba léegi loolu ane fa ba muy di yàlla yeeg moom nag déedéet waaw moo tax borom ah, borom moo tax nit yàlla yi wax hein ma mën naa jël time mën naa bañ jël mën naa bañ a jël temps de. <laughs> mën na ko bañ a jël <laughs> ndax xam nga yàlla moom <laughs> ndax temps amut di temps amul ndax xam nga fi nga. da dafa seetlu ku tuub xees boo ko daree boo ko daree waa ne ko yàlla xam na waaye makaan amut ko. Hmm. xam nga loolu waaw rek waaye pour mu dégg li nga wax mooy. waaw loolu loolu mooy allahu allahu yajtabi ilayhi man yashaaw. wa yahdi ilayhi man yunibu man ñu ni Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne ñaar ñooñu ñoo am am na ñoo xam ñu ëpp ci nit ñi buñ góorgóorloo yàlla yeggale leen waaye am na ñoo xam ne nag soxla wuñ góorgóorlu moom moo leen tànnal boppam yeggal leen loolu <laughs> uh-huh. ku tafsir Quran mu ne xadir uh-huh. uh-huh. alayhi salaam waaw alayhi salaam mu ne Cheikh Tidiane daf ni du yónnante ndax bu doon yónnante te jamono Moussa Moussa dina ko xam. dëgg la ñu ngi ci mu ngi ci jawaayul maani. mu ngoog dégg na waaw daal dégg naa ko mm-hmm. mu ne yónnante bu bokk ak yónnante jamono foog mu xam ko. Mm-hmm. bu doon yónnante. yónnante Moussa bu xamee ne yónnante lañ ko ab yónnante lañ ko yónnee. waaw. dana xam ne ab yónnante du def dara lu jogewul ci yàlla kon du ko sikkal. du ko sikkal nukkuraan ya mu ko doon wax ak umra ak du ko sikkal. Mhm. mu ci jawaahir jawaahir eh, boo déggee bu ñuy wax jawaahirul maani buntu buntu bi Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu anhu di firee alquran waaw ak buntu bi muy firee waxi yonantu sallallahu alayhi wa sallam hmm. loolu rek ay jawaahir nag yeneen yi ci des yëpp introduction la ak euh, xéewal yi nga xam ne yàlla jox na ko Cheikh Tidiane ci tarixa ak ay mayam li ci la ci borom téere bi du tudd moo tax ba mu yeggee ci buntu fi Cheikh na Tidiane di firi alxuraan mu ne fii nag moom mooy xolu téere bi maanaam li tax a jóg téere bi lii la waaw moom téere tafsir boo bëgg liir na ko liir balaa nga liir jawaahirul maani waaye boo liiree firim Cheikh Tidiane dootoo nawati firi waaw lool mënul nekk. <laughs> dootoo nawati si. seetal seetal lu lu lu gàtt liñ ci wax nii rek. ne mm-hmm, mm-hmm. ne bu doon yónnante rek du ko wax naan. Mm-hmm. la taj jiita. Cheyan Nukuran ak Cheyan Imran Imran. du ko ko wax kon du ko du ko ko ne di wax. du ko wax mukk ah, na yaatu sax waaye danañ ci dellu allah akbar waaw kon ñu ah. continuer gannaaw <laughs> yaatal xam nga lii moo tax njëriñ li nekk ci kii bi bu doon whatsapp tey da nga koy ñàkk mudaakara dañuy wax ne waaw ah, bu doon whatsapp da nga koy ñàkk rom xam-xam yi ñu ne fahmu satrayni xayrun min xifdi wiqrayni wa mudaakaratu thnayni xayrun min haadayni Hmm. Ah, ñaari bind yoo dégg hmm. moo gën sëfëb gëlëm ci téere yoo yoo yoo mokkal te ko dara kay waaye ñu ne nag muzakaratu ñaar ñuy hmm. waxante di fàttalante ci xam-xam moo gën ñaar waaw moo ëpp ñaar yële moo ëpp dégg gi waxaat ko ma dégg fahamu satrayni xayrun min xifdi wiqrayni allahu akbar wa mudakaratu snayni xayrun min haadayni xayrun min haadayni mudakara lu am solo la trop ñu ngi woon ci ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lu tax lu tax wala faxra ndax hmm. ba ko yàlla yéegee bay waxak ak moom la lam wax ak moom hmm. kenn amu ci accès fa awxaa ila abdihi ma awxaa hmm. abdu la ko fa tuddee tuddeewu ko fa sayyidu moo tax mu ne maa sang doomu aadama de waaye loolu dee sama puugare sama puugare mooy nekk jaam ndax bu ma nekkee sang maa ngi ci jaam ñi nekk ak yéen puugare newut ci nekk ak yàlla ci la puugare ne te su ma nekkee ak yàlla dootuma tudd sayidu abdu lay tudd abdu lay tudd allahu akbar hmm. alaaji omar ndaw radiallahu anhu mu ne laqad kaana abdallahi laa abda qablahu wa kullu abidin taabiuuna li xalqihi allahu akbar waaw ah, xasid xasida bu rafet bu mi ngi ko tàmbalee fa xaqaqa xaqal xaqi wal xaqu xaquhu wala xaqa fi xaqin yaxiqu ka xaqihi allah huwa alsaadiqu almasduqu eh. laa abda mislahu huwa alxaatimu almuxtaaru min rusli rabbihi allahu akbar mhm. hmm. muhammadin ah mooy turam wi nga xam ne moom la tudd te ñu tuddee ko ko ndey Aminatu wax na ne ba ma amee juróom-benni weer hmm. ci Euh, ëmbam la ko aji feeñu feeñu mm-hmm. ne ko bu juddoo na nga ko Muhammad ñii ne bu juddoo na mm-hmm. nga ñaan yàlla mu musal ko ci ayu bépp aji añaan mm-hmm. Muhammad ala wazni mufaal maanaam moom nim santoo kenn santoo wut ni waaye niñ ko santee it santewuñ ko kenn ñu ne tuddee nañ ko muhammad li kathrati xisaalihi lmahmudati ba ñu laajee abdul mutalib moo lu tax nga tuddee ko muhammad li amul ci say maam mu ne rajaa an yaxmadahu ahlu samaai wal ard allahu akbar fa xaqaqa allahu rajaahu xam ne kon ni dañ koo ilham tur yi moom waaw ahmadu moom mooy ki gën a sant yàlla ci jaam ñi ahmadu moo gën a santu ci jaam ñi muhammad nag mooy koo xam ne fu mu luñ koy santee rek lay def waaye fu mu toll ñu ngi koy sant rek mufaalun moo gën a jotal mahmudun wa ala alihi yal na yàlla dolli ci ay ñoñam ñoñam nag ci barabu atte moom ñooy almuminuuna min bani haashimi am na ñu ne wa min bani muttalibin ndax yonentu nee na banu muttalib ak banu haashim mosu ñoo tàqalikoo ci jaahiliyatu mosu ñoo tàqalikoo ci lislaam Hmm. Hachim ak Muttalib ñoo bokk ndey ak baay. Hachim ak Banu Muttalib. waaw Hachim ak Muttalib Muttalib moo jëli woon Shaybatul Hamdi ca Medina. ba hmm. mu agsee ñu naan waaw kii mu indiwaale xale bi kan la ñu naan Abdul Muttalib jaamab Muttalib la. Hmm. ñu ne foofu la jógee ñii ne daf ko doon nëbbu ngir bañ ñu fexeel ko ñii ne ñii ne waaye Abdul Muttalib turam dëgg dëgg mooy Shaybatul Hamdi Muttalib moo bàyyi mu bokk ndey ak bàyyi Shaybatul Hamdi waaw mooy turam hmm. Abdul Muttalib Hashim a ko jur Hashim tamit du tur hmm. Hashim Amru la tudd waykat ba mu ne Amrul ala Hashama tharida li qawmihi wa ahlu makkata musnituuna ijaafu hmm. fa tabe woon ba foo ko fekk mi ngi dëbb dugub mi ngi dëbb mburu mi ngi ko defar ngir miskin yi wax nañ ne sax mhm. rihlatu chitaay wa sayfi moo ko créé mhm. fexe ba faqiir yi di ànd ak ñi oomal di def ay caravane di def commerce ñoom ñu faree liggéey ba buñ paree ñu séddoo fal yaabudu rabba hadal beyt yàllaa ngi fàttali nag xéewal googu rihlatu chitaay wa sayfi aha ñu ne loolu mooy al alu alu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne azaka aram na ci ñoom bu dee ci wàllu ñaan nag ñu ne mooy atqiyaawu ummatihi ñu ne mooy ummatuhu yëpp hmm. waaye ragal yàllay xeetami am ñu ne dégg nga xeetam wi la loolu la imam malik wax atqiyaawu ummatihi mu ne buñ ne waala alihi rek atqiyaa ummati yëpp dëkk dugg nañ yàlla nañ ci bokk. dugg nañ wa ala alihi amin ya rabbi amin ya rabbal alamin amin ya rabbi. waaw waaye bu dee ci baabu azaka nag. Hmm. aqaaribuhu almuminuuna min bani haashimin wa qiila min bani almuttalibi kadalika hmm. ñooñ ñëpp yal na yàlla sotti ci ñoom yërmande xéewalam hmm. wasallama tam salla dolli leen musal borom xam-xam yi dañuy wax ne dañuy sib nga julli ci yonantu sallallahu te yeggoo ci salaam ji lu dut mu nekk nag an nas ndax nas laa yut laa yataxayar an nas laa yataxayar waaye bu dee yow yaay julli sag julli rekk julli hmm. dama <laughs> dama demoon wasallama waaw nga yokk ci wasallama bu dee nas la nag hmm. nga nga dem nga wax la nas bu wax waaw nas nag dana nekk nasun xaybiyun dana nekk nasun sharciyun hmm. waaw nas allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima nasun sharciyun Mm-hmm. allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uliqa nasrun xaybiyun xaybiyun saxiix waaw ñaari benn amul ci salaam te ñoo ci salaatu ala nabi mm. am na kuma eh, benn mbokk defe naa waa maghrib la dañu dañu julli juma ci Tampa mm. semaine bële bi may xutba nag man sama xutba xam nga salaatul fatixi laa koy ubbee mm-hmm. xam naa bi mu paree nag ah, mu laaj ma laaju fiq boo xam ne daf ci jub xam naa ne cax la waaw mu ne ma salaatul fatihi bi ndax mën nga maa wax la nay cosaanam ci sharia mm. ma ne ko yow ci waa kër yonent maanaam yow bëggëm nga yonent yàlla muhammad mu ne ma sallallahu alayhi wa sallam gëm naa ko. sallam gëm na ko. ma ne ko ndax mën nga maa wax sallallahu alayhi wa sallam bi fu ko yonent bi waxee ne nañ koy wax. Hmm. dégg nga wax ji. dégg naa ko waaw maanaam moom la laaj ci laaj nga ko ko. rek laa ko waaw ma bi bi ñuy jàngal ne niñ julli ci moom lan la wax. Hmm. mu ne ma salaatul ibrahimiya ma ne ko waa sallallahu alayhi wa sallam foo ko kon. <laughs> foo jële ma ne ko dafa am loo xam ne dañu ma ne ko dafa am lu ñu jàng ci usul ne al mutlaqu laa yuqayyadu illa bi dalilin sharia su tënkee kenn du tënk fekk dalil amut wala dalila ma ne ko koo mës dégg muy jàng waa muy bind waa muy ba rek julli na ci yonent bi julli koo xam ne boo moytuwul ci boppam la jógee te te terewul mu wér lu tax na ngay laaj salaatul fa nekk sax naan ko kii ko indi lañ ko jox fi mu tontu <laughs> waaw waaye ba ma ko waxee loolu mu xam ne waaw xam na fa fa fa fa buhita ladi amana ma bañ a wax kafara waaw amana waaw moo xam ne moom huwa mu barmaj dafa am ñoo xam ne dañ leen a programme ne la salaatu nangam bi daaxalal lii la yonentu wax te yow da nga naan alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah waaw foo jëlee wa salaatu wa salaam ala rasulillah Ah. wa usalli wa usallim ala sayyidina foo ko jëlee ma ne ko yonent bi muy wax ne yàlla na nga julli ci man ni nga jullee woon hmm. ci Ibrahima ni nga jullee woon woon sax am na lu muy firi kon am na yàlla ana xanaa am na yàlla julli gum julli woon ci Ibrahima gu yonent bi bëgg mu julli ci moom nanga nga jullee woon kama sallayta ah, woon hmm. ah, ndax yéen ndax am na nag ñoo xam ne yàlla dafa julli ci ñoom waaye salaatu jalaal la julli ci ñoom moom nag bëggul salaatu jalaal salaatu jamaal la bëgg te ñun jàpp nañ ne salaatul fatih bokk na ci salaatu jamaal yi gën a mag mhm. ah am na ñum julli ci ñoom ñoo xam ne salaatu jalaal la julli ci ñoom yàlla ba muy wàccee xéewalam ci yonent yàlla yaxya ci shahadatu la ko la ko la ko jaarale dañ ko rey allahu jalaal la jamaal ah, jalaal mm. te nag yonent tudd na yeneen julli ah. tudd na yeneen julli ba muy tudd julli yi daf leen tudd rek ngir joxe misaal waaye waxul ne hmm. nañ ca yem ndax ibnu Mas'ud ne bu ngeen dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi na ngeen ko rafetal li nga li nga li nga am sañ-sañu fente ngay rafetal hmm. ngeen ko rafetal maanaam na ngeen rafetal tëgg bi mooy tëggin wa ngay wa tëgg ba mu rafet rek te dara te dara gënu te rafet nag xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim waaw ah, dara gënu ko rafet yonent julli ci yonent bi ni yonentu toll ah ni yonentu toll kenn xamu ko maqaamaatu xayri lxalqi an xayri rabbihi mugayabatun fal taqra an surat an najmi loolu Cheikh Ahmad Bamba wax waaw hmm. ah, ke yonent bi hmm. moom ki ko bind rek xam ni mu toll man de li nga wax nii rek fàttali na ma <laughs> démb am na waxtaan wu ñu ma doon def loo fàtte xam naa ne ñooñu dinañ ma indil musiba la hmm. léegi la soo a ñëw ci sama bopp bi sa mbokk ma nekk fële ceral yi ñu koy wax sëñ Manda. naka la tudd. Manda Manda Loum. waaw Manda Loum waaw. wallaay yónnee woon na ma message pour waxtaan bu ma leen waroon a defal démb ci seen. Euh, kii kool bi léegi la ci sama bopp bi soog a ñëw. ah kañ nga ko war a def tey. démb ci guddi. man dama ko ah, léegi lay soog a ñëw ci sama bopp xam naa ne kay mooy bare di ko woo. allahu akbar allahu akbar <laughs> ah loolu de eh. loolu de faat na ko. waaw sant yàlla. waaye nag beneen yoon incha mm, allah. wa sahbihi firi wuñ ko wa sahbihi. Hmm? sahbu ismu jam'in la li sahibin. loolu hmm. imaam loolu si ba waxee. Hmm. dafa am dafa am waaw dafa am tur yoo jàmm yoo xam ne amuñu mufrad ismu jàmm lañu sax bu ci la bokk. sax bu ci la bokk ok sax bu amul mufrad. waaw dégg nga de bu dee imaam Sibawahi loolu la wax nee na ismu jàmm la li saaxib. Hmm. bi maana saxaabiyu. axfash nag nee na jàmm la ci saxaabiyu. Hmm. Mhm. waaw jam jam jamu la ci saaxib loolu la Axfas wax jawhari yu nee na mu ngi mel ni rakb ak raakib kon nag sax bu ñoom jamoo la ci saaxib imaam mm-hmm. waaw imaam Sibawayh nag nee na ismu jamoo la mm-hmm. Mm-hmm. ibnu hajar nee na saxaabi mooy ku dajeeg yoon man laqiya nabiya sallallahu muminan bihi wa mata ala lislaami allahu akbar ku dajeeg yonent bi gëm ko te dee ca waaw maanaam naam dund ak ko te gëm ga te ca gëm am na ah, am boole wa in taxallala wa in taxallalat riddatun même su fekkee on ne mu rata doon na tuubaat sax am na ñu ca boole loolu hmm. am na ñu ne bu fekkee dafa murta tuubaat te gisaatu ko gannaaw bu mu duñ ko boole duñ ko tuddee saxaabi waaw ah, duñ duñ ko tuddee laa bëgg wax dajee parce que daje foog mu dee waaw dajee nag moo gën a technique gis waaw dajee dajee ci dund waaw dajee moom ci dundam ndax mhm. boo ne ku ko gis da ngay génne Seydina Abdullahi ibn Ummi Maktum di mhm. ndax silmaxa la woon radiyallahu taala ah, waaw gisut ko woon waaw ci bët waaye daje na ak daje na ak moom mhm. daje na moom buñ ne dajee nag moom mooy mu dajee dana génne jamono wante ku àndut ak daje ndax ku jamono wante ak moom waaw loolu am na te gëm ko. te dajeewu leen ga. tax nga nekk saxaabi yu. ah doo nekk. déedéet ndax najaasi yu jamono wante na ak moom gëm ko waaye dajeewuñ. dajeewuñ. moo tax najaasi yu du saxaabi yu foog nga dajee ak moom. Mhm. dajee nag firiwul gis ak bët. déedéet. Mhm. moo tax. ñu ñuy ñuy ñuy wax ne Seydina Isa nu Mariama saxaabiyu la nabiyu la saxaabiyu la moom Isa waaw ok waaw dañuy wax ne ki mujj gaañu ci saxaaba yi mooy Abu Tufayl hmm. Amir ibnu Wailata waaw mu ne moo mujj e, génn àdduna ci saxaaba yi mm-hmm. ñu ne e, déedéet Seydina Isa deewagut te gis na yonent bi ca rañaan nga <laughs> te gëm na ko allahu akbar waaw moo tax ñu ne kon moom mooy kii mujj dee ci saxaaba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye borom téere yi nag suñuy wax saxaabi bi euh, mujjee gaañu ci jamono yonentu sal ci ci saxaaba yonentu sallallahu alayhi wasallam abu tufayl la ñuy wax abu tufayl mooy amir ibnu waayil mu ngi gaañu atum téeméer ak ñaar gannaaw gàddaay yonentu sallallahu alayhi wasallam hmm. one hundred and two waaw hmm. mooy seven hundred twenty one euh, gannaaw juddu yonentu yàlla isa alayhi salaam Mm-hmm. waaw kon yonent yàlla Isa saxaabiyu la. pare nabiyun wa saxaabiyu li annahu raa annabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa axiru saxaabati eh, mawtan. loolu de sew na loolu de sew na. ne ne loolu de loolu de moom it dégg ko jëfe na. seetal loolu. parce que boo boo boo xamut. mbiram rañaan nga rek. Ah. pour nga xam nu mu doyee. <laughs> gisee yonent bi dafa waaw waaw ah, waaw mu ngi noonu. waaw seetal loolu. waaw loolu de la loolu loolu loolu li ma wax nii loolu la imaam Zahabi ci boppam wax na ko. waaw ah, imaam Zahabi ku ku ku bëri. ku yàlla may la ci xam-xam. waaw. Mm-hmm. julli ci yonent bi nag lu bari njëriñ la waaye duñ ca. yàgg ndax bëgg a yeggali bunt bi ndax hmm, na ci rek Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiallahu anhu nee na hmm. bépp jëf hmm. bu jaam bi jëf mi ngi ci bayna qabulin wa raddin illa salaata ala rasulillahi sallallahu alayhi wa jëf joo jëf rek mën nañ mënees na koo nangu ko mënees na koo bañ a nangu boobu des julli ci yonent bi waaw julli ci yonent mu xayru mardus allahu wax nañ ni jaam bi lépp lu mu yoreel jaamu yàlla yi ci xaq bu yowmal qiyaamatee danañ ko jël ci tiyaaboom yi fay ko ba mu des salaatu ala nabi waaw moo tax ba ko ubay waxee lu ma lay defal ci sama salaatu yi lu mu tudd lu mu tudd mu ne ko baax na ah. waaye boo yokkee mu gën ba ne ko kon nag ah. ma jox la yëpp mu ne ko kon nag yuxfar laka zanbuk bu ko defee kon sa bàkkaar yëpp yàlla baal la ko sa yitte yëpp yàlla fegal la mbaa fajal la mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam yonentu na nañuy baril julli ci moom ah, waaw nañuy baril julli ci moom xaddu kasratu nag moom la ca gën a tuuti mooy ñetti téeméer ah ñetti téeméer de. mooy li gën tuuti ci kasaratu. kasaratu. Hmm, ñetti téeméer. waaw moo tax ñuy jël jaysu kon. ah xaw ma de yéen nag xam nga yéen ay ay kii ngeen yéen vraiment kuréel ngeen. <laughs> ñuy ñu naan jaysu. Eh, yéen ñetti yéen moom yéen xam ngeen ay kii ngeen ay sëriñ ngeen. Badou <laughs> te te lim daal mooy ci ab tijaan nag na torop moom ñetti téeméer. moom lu wax. ci ab tijaan nag moom ñetti téeméer na torop. ndax ñetti téeméer moom boo xoolee sa awraat yow mi yooyu sax am nga ñetti téeméer far. Hmm. boo xoolee sa awraat yow mi yooyu. dégg nga di nga di nga di nga salaatu ala nabi ñaari yoon ñaari téeméer ci ci wir ak suba waaw boo wasifa boo wasifa benn yoon am nga juróom benn fukk ak ñaar ci mm. salaatu ala nabi boo wasifa ñaari yoon am nga lu ëpp téeméer waaw te Cheikh Tidiane nag dafa bëgg suñu waxtu yi féex yi ñu ciy jàngal alxuraan ak di ci julli ci yonentu sallallahu alayhi wasallam bi salaatil faatixi limaa la allahu akbar waaw bëri na lu jaam bi di soxlawoo fekk bu soxlawoo woon salaatul faatixi limaa xuliq Cheikh hmm. Tidiane nee na lépp la warlu lépp lépp waaw ñu jàng qaala abu muhammadin hmm, hmm, <laughs> su fekkee moo ko wax war na koo wax su ko waxutit war nañ ko koo waxal ndax dak mm. tuddee nit woowee ko woowee ko mm-hmm. ko kooku dafa bokk ci euh, façon yi yaram di màggalee nit mm. su la bëggee màggal du la woowee sa dafay jël sa taaw ne la yaa abadiw sàngam hmm. waaw bu waxee lool rek mu ngi lay wan respect hmm. Hmm. su la waxee loolu yaa ngi euh, yonentu sallallahu nekk na ca Makka ñu di ko yëjji di ko yëjji sang Quraysh yi bi hmm. ko yëjj eh, utbatu ñëw ci moom hmm. di ko yu ayibal di ko yëjj ne ko yow de hmm. indi nga loo xam ne taqale nga suñ wooloo dofloo nga suñuy xel ayibal nga suñu yàlla ak suñ diine ak lépp loo xam ne suñ bàyyi ak suñ maam yi nekkoon nañ ci lu ne mu wax lu ne mu wax bi mu paree ak wax ju ñaaw ji mu wax yonentu yëpp yonentu sallallahu alayhi eh, ñàkkewu ko kersa bi mu ko bi mu koy gaaral ne ko su fekkee ne hmm. alal nga bëgg ñu dajale la suñu alal yépp jox la su fekkee sharaf nga bëgg ñu def la ngay buur suñu kaw ba duñ def dara lu dul ñu diisoo yow su fekkee mu euh, maanaam ñu jox la càng bu fekkee nguur nga bëgg ñu jox la su fekkee nag dafa am lu lay dikkal loo xam ne xamuloo ko ñu wutal la ñu wutal la docteur mu faj la waxa waxoo pare mu ne ko aqad faragta yaa abal walid ndax pare nga yow abal walid gis nga wooyoo ko turam utbatu sax waaye daf ko wooyoo tur yu mu gën a fonk yu gën a respectful loolu nag nit dana ko danañ ko woowee nit waaye ta taamuñu nit di ko woowee boppam ndax dafay niru réylu waaw mu ngi mel ni man nit bu ñëwee ne la man maay Mr President wala man maay iliman diw sàngam bëggul ah, ah. moo tax ñuy wax ne ndax abo muhammad gi kii nettali mbindam moo ko wax wala moo ko wax ñu ne su fekkee ne moo ko wax hmm. ki yegg fi mu yegg mën na ko wax jaizatun liman balaga darajata taadima ok moom daal wala wala daf ko wax ngir wane ne yàlla may na ko doom ju tudd abu wala daf ko wax ngir ne tur woowu la ko waa jamonoom xamee woon hmm. ndax danañ woo woowee abu lahab abu lahab waaye jubluwuñ ca màggal ko <laughs> waaw kun yo la woo xam ne waa jamonoom noonu lañ ko xame woon te ta hmm. boo ko boo waxut kun yoo wa boo waxee tur wa wax lu gën a garaaw ndax Abdul Uzza la tudd boobaa kon nga ne ko hmm. nga askanee ko jaamu Uzza mi nga xam ne ab xërëm la loolu shirk la wax nañ ne iblis ci boppam dañ koy dàkkantalee abu murra ak abul ximr ak abu kurdus hmm. ñu ne turam wi ko yàlla joxoon

Sharifa, be careful. Okay, yeah, close door, please. <laughs> baal ma de. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye mën naa am ñi kii nettali mm. moom wax abu muhammadin mm-hmm. qaala wax abu muhammad turam abdullahi mm. am na ñu ne turam mooy Abdurrahmaani hmm. Abdullahi ibnu hmm. Abi Zaydin hmm. Abdullahi ibnu Bilal ibnu Abdirrahman Abdullahi ibnu Bilal ibnu Abdirrahman ndax Abu Zayd dàkkantel la <coughs> <coughs> dëkkantal la waaw ah, maanaam kunya la comme ni Abu Muhammad nekkee kunya du tur hmm, hmm, hmm. alxayrawaaniyu kay ko jug xayrawaan xayrawaan dëkk la buñ xam nekk ca maghrib waaye boo ne maghrib léegi dañuy foog ne Maroc nga wax waaye Tunus ca la nekk ah, ci suufu Tunus Tunus la nekk seen université ba bokk na ci université yi gën a cosaanu gën a yàgg ci àdduna xayrawaan waaw jaamiatul xayrawaan jaamiatul de suuna waaw boo e, boobu ca naka la tuddati Californie bu Hamza Yusuf ma ngi ko tuddee zaytuna ba nekk foofu ca Tunis. Oh, ok. college bi ngay dégg ci California. waaw. Eh, ndax Hamza Yusuf Maliki yu la. tuba hmm. tubaab la nag. waaye ba mu tuubee dafa topp àll bi moom di gëstu. waaw nee ndax moom ci benn accident bu mucc boo xam ne ci la jàpp yàlla daf ko jox second chance am da jamono jooju gëm yàlla sax defatut ko donte ci e, xalfiya tasraaniya la la bokk man way juróom ay chrétien lañu yuñ hmm. xam ci diine jooja sax topp àll bi nag dem na ci bi dem na maghrib dem na ba yàlla dimbale ko ba buy lo làkk luxal arab bi mën nga ko jaawale ko nàmp ah. waaw moo ci tubaab waaw buy waaw mën nga buy ah. ko jaawale ku ko nàmp bokk na tey ci jullit yi ëpp influence ci àdduna bi waaw Hamza Yusuf Hamza uh, Yusuf moom moo moom moo créé Zaytuna University Zaytuna College naam. ok Zaytuna College ci Californie. yaa ku ku uh, ku yàlla may la ci xam-xam. trop uh, Zaytuna College. Mm. ku yàlla may la ci xam-xam ku dal la. lool lool Abdullahi ibn Abi Zayd al-Qayrawaaniyu. Mm-hmm. ndax fa la dëkk fa la juddoo sax. atum ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn gannaaw gàddaay yoon si yàlla Muhammad walaay salaam ñetti téeméer ak fi jógee atum ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn maanaam booba am na juróom ñetti fukki at hijriya ah, gannaaw gàddaay yonent sallallahu waaw ku bëri taalif la waaye ku bari manaqib la oh. néew na ku mënoon a ni moom mbaa ku amoon diine ni moom mbaa ku sàmmee woon ni moom mbaa ki dëddoo woon àdduna ni moom yàlla it mayoon ko ni mu ko mayee woon Abdullah ibnu Abi Zayd al Qayrawani naam al ni ko yàlla maye woon xam-xam noonu la ko maye woon alal ni ko yàlla maye woon tabe ci xam-xamam nu ko raw la tabe woon ci alalam alalam allahu akbar allahu akbar waaw ñi am ak ceetlu ñi amuk ceetlu sax wax nañ ne képp koo xam ne hmm. jàng na risalatu jëfe ko yàlla dana ko may li mayoon borom risalatu allahu akbar mel na ni loolu bokk na ci li may bayra ak xabul risalatu allahu akbar allahu akbar ah. am na xabul de téere ah, bii ah. nee nañ daal seetlu nañ ne ku ko jàng jofe ko yàlla hmm. dana la may xam-xam may laalal dana la may sawar ci joxe xam-xam dana la may sawar ci joxe alal yàlla nañu yàlla booleel loolu yal nañu bokk na ci ay manaqibam hmm. ak izamu awsaafam mooy uluwu sanad hmm. mooy diggante mook Malik lim jëlee ci Malik boo xoolee mook sax noonu benn benn waasitatoo dox ci seen diggante waaw ah, ah, kii lañ nekk direct lañ nekk de. Ah, ok direct bi la ok ok léegi seet naa. direct lañ nekk de ma ne diggante moog sax noonu. waaw. benn waasitatoo ci nekk. diggante moog Ibnul Qasim benn waa ñaari waasitatoo ci nekk. diggante moog Malik ñetti waasitatoo ci nekk. ndax sax noonu déggee na ci Ibnul Qasim Ibnul Qasim taalibe Malik la. moom. ibnu abi zayd al qayrawani hmm. daan nañ ko woowee malik as-saghir ci jamonoom malik mu ndaw malik mu ndaw nañ ko woowee xalifatu malik daan nañ ko woowee qutbul madhabi kenn melutoon ci moom ni ni moom ni meloon ci jamonoom ci wàllu dégg ak xam ak ci wàllu sàmm ak malik daal ku mel ni malik daal dafa mel ni gannaaw Malik bi Ibnu Abi Seydin ñëwee lañ gisaat Malik moom gisal ci mooy meneen Malik waaw ah, mu nga gannaaw Malik demee fii la Malik feeñaat naam waaw waaw téere bii nag mu ci boole li war ci mukallaf bi mm-hmm. ci mu xam ko moo xam pas-pas la mm-hmm. wala attee jaamu yàlla ni ki mm-hmm. laab ak julleeg mel ak attey jëflante ni ki sëyeeg njaay ak miraas mel mm-hmm. ak mm-hmm. ay jikko yu rafet yu ñu war a royee yonentu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa mu tàmbalee téere bi ci basmalatu muy tàmbalik xaqiqi ibtidaan xaqiqiyan mu tàmbalee ko it ak xamdalatu ibtidaan idaafiyan mu ne alhamdu mbooleem xaaji cant yi lillaahi luñ moom la te luñ yellool la ñeel yàlla maanaam lillaahi yàllaa leen moom ba pare moo leen yelloo itam danga moom dara ñu jox la ko da mhm. moom dara ñu bañ la ko jox même su fekkee ne yaa ko yelloo yelloo sax ñàkk gi la ko ñàkk jox du tere nga yelloo ko nag ku sant yàlla cant ga ngay sant moo ko moom moo ko yelloo ku ko santutit ko mën a sant yàlla yàlla la yàlla yelloo nga ko jox rek nga sant fa ko yëgul rek waaw moom moom nga sant fa nga ko yóbbu Cheikh Tidiane mu ne kii jaamu xërëm sax tajali yàlla ci xërëm ne Cheikh Tidiane nee na kii jaamu xërëm sax yàlla tajali gu tajali yàlla def tajali ci xërëm ba moo tax mu mën koo jaamu. waaw tajali gu yàlla def tajali ci xërëm ba. waaw ci dëgër la. waaw moo tax mu mën koo jaamu. ci lu wet. waaw yéen ñiy jàng da ngeen di jàng. Eh, eh, naka ngeen koy waxee xamdul xaadisi lil xaadisi xamdul xaadisi lil qadimi ak xamdul qadimi lil qadimi ak xamdul qadimi lil xaadisi yëpp it yàlla moom subhaanahu wa taala yëpp yàlla moom waaw ah. alhamdulilah li ma fàttaleel benn paa ah kaama sëñ kaama paa Ousseynou Niass la tuddoon xaama ah mu ne moom fuñ mos a tudde Iblis sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> ah, xam nga kooku moom maj zoob la moom moo daan wax moo tuddee woon Alaaji Ibrahima Ñas coobare yàlla gi est ce que moo tax li bu ñu waxee Cheikh Tidiane mooy xataa këram bi sax këram bi nga jëlee yàlla nga nga mën cee jot ba jot bi ma waxee loolu la sallallahu alayhi wa sallam nga ma wàcce gis na suma moom maj maj maj maj maj maj zoob la xam nga maj zoob moom. allah akbar maj zoob kenn du ko roy. saa nit boo xamut fu ma waxee man nga koo. Mhm. dëkkal fu mu dëkkute. dëgg la am na yoo yoo xam ne soo ko déggee. moo waxee xamoo ko. doo ko doo ko. wax ma ne waxi Cheikh Tidiane ji lu diis la. Mhm. lu maanaam. lu mhm. naqade dégg la. est-ce que. xam nga. laa tuqtada laa laa taqtadi billadi zaalat shariatuhu anhu walaw jaa bil anba an illahi allahu akbar waaw majdub soo waxee dara yow da nga koy taawil rek waaye doo ko roy nag waaw laa taqtadi billadi zaalat shariatuhu anhu walaw jaa bil anba an illahi allahu akbar waaw su yeggoon ci yàlla nee na ma ne sax du tax ñu roy ndax majdub nekkatu fa si Cheikh Ibrahima mu ne isnaani laysa minni wala min altariqati bi shay allahu akbar saaliku majdubun lam yasluk wa saalikun lam hmm? yujdab in baqiya ala xaalihima aw kama qaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdu nag hmm? ci juróomi yëf lay taxaw hmm. mahmudun bihi mahmudun alayhi xaamidun mahmudun ak maa yadullu ala ittisaafi lmahmud bilmahmudiyati xaw ma dégg nga maam déet nga ne ci juróomi yëf lay taxaw waaw mahmudun bihi hmm, mahmudun bihi benn ngoog mahmudun alayhi alayhi hmm, hmm. ak xaamidun Mm-hmm. mahmudun mm-hmm. ak mahmudiyatu mahmudiyatu mooy melo wi ne ci ki ñuy sant bu dee melaw mat la yàllaa ko moom bu dee melaw taar la yàllaa ko moom bu dee melaw màgg la yàllaa ko moom waaw melow yi nga xam ne ku am xel mu mucc rek dana xam ne melow yi kum ne ci moom war nañ laa sant melow woowu mooy tax ci bokk mooy mooy bi njëkk bi xam du di taxaw almahmudiyatu ñaareel ba mooy almahmudu alayhi sometimes yaa ngi may dégg ma ne ñaareel bi mooy al mahmudu alayhi mooy ma kaana al wasfu bil jamili bi izaihi wa muqabalatihi la ñuy santee ka ñuy sant ñetteel bi mooy kiy sant foog sant fu mu dëgg foog am aji sant ñeenteel bi foog am ku ñuy sant mooy mahmudu juróomeel bi foog nga tudd nag la ngay sant waaw mooy mooy mooy al ittisaaful mahmud bil mahmudiyati maa yadullu ala ittisaafil mahmud bil mahmudiyati hmm. mahmudun bihi mahmudun alayhi xaamidun mahmudun ak ittisaaful mahmud bil mahmudiyati yooyu yëpp nag boo ne alhamdu lillahi bu dee algi listigraq la bu dee ahdu zik ahdiyu zikr la yëpp lillahi yàlla ma lu ci teg vi yàlla mi nga xam ne ibtadaa moo tàmbalee linsaana doom aadama bi nicmatihi ci xéwalam maanaam sos gim ñu sos tafaddul la rek ixsaanun minhu laa wujubun alayhi laa wujuban alayhi dafa baax rek du ko war de dafa baax rek ci lu wét baax maanaam ñaari ñaari xéewal ibnu nee na kenn mucc ci waaw nicmatul ijaadi wa nicmatul Mm-hmm. wa nicmatul imdaadi waaw mm-hmm. mm-hmm. ah. alhamdulillahi waaw sant ñeel na yàlla mi nga xam ne ibtada moo amal al insaana mboolem doomu aadama yi te koppi yewut leen fenn nag mooy ibtidaawu oh. koppi yewut leen fenn loolu lay ibtidaawu moo ko sos waaw bi nicmatihi ci xéwalam mooy yàlla waaw nicmatul ijaad mooy xéwal amal nicmatul imdaadi mooy xéwal ak mm. lim lay defal ba nga continue di am waaye nicmatul imdaadi dund gi mhm. dund gim la may mhm. Mhm. gàncax yeeg yëpp bi mu la defal ngay noyyi bu dul woon système bi kay ah, nit na fatt bakkanam rek fukki minute ne du noy xaw mbooleem lu lépp luy tax nga continuer di fi ne ah. ci imdaad la nicmatul ijaadi wa nicmatul imdaadi eh, dawlu dëgër mhm. wa sawwarahu mhm. du loolu nga teg ah, waaw mu mellal ko fil arxaami ci ruxumi ndey yi mhm. bi xikmatihi ci xereñam allahu akbar waaw xaw ma nag lu tax mu jamoo ko ko jamoo mu naam hmm. daf ko jamoo ngir ñetti ëmb yi nekk ci biir fi doomu aadama di ne hmm. wala daf ko jamu ngir ne doomu aadama bu ne ak rahim bam ko jaarale loola daf ko jamu ngir hmm? doomu aadama bu ne ak rahim ba mu ko jaarale ah, waaw wala li ma njëkk a wax muy azulumaatu thalath mooy mooy arham maanaam stages yi waaw déedéet waaw si atwaar la ah, waaw stages yi kooku atwaar la mm-hmm. waaye biiru doomu aadama bi mu ne hmm. ak mbuus yi ya ko ëmb loolu tamit arxam la arxam dëgg la waaw fa mu war a kilee mhm. loolu yëpp arxam la ñaari daal boo ci jër rek mu mën na laa déggloo. fi l bi xikmatihi de. ba mu ñu sosee ci xéewalam it sote soseewuñ ñu nu ne. déedéet. ñu rek ñu sosoo nu ne. déedéet waaw ah. xéewal yi wax nañ ne mooy ijaad ak imdaad imdaad al ijaad min al adam imdaad nag ba ca gën a ba ca gën a mag ci imdaad yi mooy hmm. nicmatul imaani billahi taala fa laysa yuxsa alladi awlaahu min nicamin fa laysa fa laysa yuxsa alladi awlaahu min nicamin ajalluha nicmatul imaani birrusuli man za min alxalqi yuxsi shukra waahibiha law kaana yashkuru tuula dahri lam yasili allahu akbar waaw imaam Ghazali nee na cant gi rek geneen xéewal la gu soxla cant <laughs> waaw mën a mën a sant ah. <laughs> <laughs> geneen xéewal la yàlla may la xéewalu nga mën koo sant. <laughs> <laughs> mën a sant. waaw eh, loolu kay dara xéewal boobu foo daa mu ëpp ci sax de. ah seetal loolu. toog toog ba mën a sant yow. waaw boo ko santee yow daf la xéewal la xéewal gi nga xéewalug mën koo sant ak xéewalug sant ko xéewal la goo war a sant. Ah, ci lu wér. moo tax moo tax sant yi duñ jeex. Ah, ndax xéewal yi duñ jeex wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha waaye xéwal yi li ñuy bëri bëri yëpp nag ña nga daje ci xéwal gu mat ga moo tax waxul niamallahi la tuxsuha daf ne su ngeen doon hmm. su ngeen bëggoon a sant hmm. xéwalug yàlla gi waaw te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar waxul niamallahi de niamatallahi la wax niamatallah daf ko mufrad daf ko ifrad ndax xéwal yëpp hmm. waaw ci moom lay dellu allahu akbar wa in ta'uddu ni'matallahi ah. xéwal ak yàlla ga ah. te kooku mooy yonent yàlla Muhammad xaw ma ga xaw ma gala xaw ma gila <laughs> <laughs> <laughs>

waaw gi gi ah moom mooy xewal ak yàlla gi di. xewal gi gi ñu nekk ak moom bu mu sori boobu. ay la est-ce que est-ce que xam nga bi xikmatihi. rek moo neex. ay bi itqaanihi wa ibtidaa'ihi ala ala wajhi almaslahati waaw dégg nga bu ko neexoon def ay ay gis gi bu ko neexoon mu def ko ci suuf waaye mu def ko ca kaw. ngir njëriñam mën a gën a mët moom kay ah. xikmaam ba kay dafa leer ah, bu ko ci suuf lay suuf lay gisee sa mm-hmm. Mm-hmm. am na ci yoo xam ne bu bu ko defoon bët ci xool tànk nag ñu mm-hmm. ñoo def waaw seetal lool bu defoon bu bu ah. defoon gis ci suuf konoon gis jafe te bu ko neexoon mu def ko jeex na ba mu defee jisit ba mu jisit mu def ci kaw jis ay mbat dañuy wax mbati bët nga xam ne bu jisee lu lay lor du soxla nga indi sa loxo pour wàccee ko waaye jox na la jox la kun yëkkoonu goo xam ne soo ko defee rek waaw waaw te bu fekkoon ne dafay ubbeeku jamono bu ne ba ba ngay gis danger mën na laa lor waaye mu def ko muy yëng muy dem ak dikk di xef ak a mu wërale ko ay kawar ah, nga xam ne nga xam ne weñ yeeg yeneen insectes yi yëpp duñ mën a agsi duñ mën a agsi lu ñëw rek mu pel waaw ba pare kawar ga mu def ko taar booy taarloo ca yàlla yoo xam ne ñoo koy fekk ca kaw muy nekk ci biir ndeyam hikma nekk ci biiru ndeyam mu defee ko position boo xam ne kanamam gi dafay féetoo gannaaw yaay gi ndax tàngaayu ñamak ak tàngaayu naan du ko lor liir bi ci liir bi ci biiru ndeyam kanam gi ca gannaaw yi aayam la féete féetewul ak biir bi ndax bëggu lor lekk geeg naan gi lor ko ah parce que lekk gi ci kanam gi lay ne mm-hmm. waaye moo mm-hmm. Mm-hmm. allahu akbar est-ce que seetal loolu seetal loolu laa ilaaha ah, yàlla day ku doon xaatir dëgg dalee ci sa bopp. Mhm. Hmm. Mhm. kon da ko da nga ko gën da nga ko sa cofeel ci moom dina gën a yaatu. waaw ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ci li bët rek lañ ci <laughs> ah, ak yeneen ak yeneen. Mhm. ca yàlla. allahu bu lu lu ndey nugg bu tàngee ndey sedd. ca yàlla. Mm-hmm. te boo demee ci imdaad sax day. Mm-hmm. da nga gën a waarooti de. Mm-hmm. ah. jaww ji seetal ma bu sedd bi xëppoon tey fu ñu jëm. lépp ci nekk lépp ci nekk lépp ci nekk jant bi sax tàngooram yi buñ dee nam ñu ko sóorilee. <laughs> li ci nit mën a wax bëri na. wallaahi. allahu akbar. wa sawwarahu fi l arxaami bi xikmatihi loo teg wa abrazahu mu génnee ko hmm? wa abrazahu mu génnee ko ay axraja al insaana min diqi al batni bacda taswirihi allahu akbar génnee na doomu aadama ci xataayu biir hmm. gannaaw ba mu ko defaree ni mu bëggee walladi yusawirukum fi l arxaami kayfa yasha laa ilaha ila rifqihi ay ila rifqil insaani wala ila rifqihi ila rifqillahi taala ñaar yëpp mën naa ne ci lépp mën a nekk waaw ila rifqihi jëm ci jàppandim waaw ndax dootoon loolu mukk du génn ndax la muy am ci bu génnee jàppandi ga muy am ci xeeti bànneex yi ak xeeti noflaay yi wala jàppandal gi ko yàlla jàppandal gannaaw bu génnee mu jot ci xeeti bànneex yeeg xeeti noflaay ca yàlla hmm? waaw wa abrazahu mu génnee ko ila hmm. rifqihi ila ci ndànkam waaw jëm ci jàppandalam jàppandalam jëm ci jàppandal. waaw mhm, rifq mhm. waaw xam naa yaa nga ci yaa nga ca yaa nga ca hadis ja yàlla dana jox ci rifq lim dul joxe. Mhm, <laughs> loolu dëgg la. waaw ci jàppandal. waaw ay maanaam rifq bi maanaam irtifa waaw yombal yombalam. jàppandal gi daal mën hmm. naa nekk ci yàlla mën naa nekk ci nit. waaw. yombal yàlla yombal gi mu yombal nit ba mu génn ba mu génnee yam fay fekk ci yamu ya koy jëriñ mm-hmm. Mm-hmm. ki ki ki waaw te rifqu eh. wal gi mu wal ruux hmm. ba nga mën a yëngatu nga mën a tudd nga mën nga mën a lekk nga mën a naan nga mën a nga yooyu yëpp ci rifqu yàlla la ci gi mu génnee nit ci génn gu yomb yomb hmm. loolu ci rifqu la te bokk na ci génn gu yomb gi doomu aadama buy génn ci biiru ndeyam li ëpp bopp bay jiitu hmm. bopp bay jiitu saxiix hmm. bu tànk yi jiitu woon mu gën a jafe allahu mu jël yaayam def ko muy lalam jël leen yaayam def ko muy dundam Mm-hmm. ween yi nga saw mi génnee ci yaay nekk ci diggante neex ak saf xorom su neexoon rek mu xaddi mm-hmm. su safoon xorom rek mu sàppi mm-hmm. bu seddee meewu yaay ne weenu yaay dafay tàng dafay tàng bu tàngee sawam yaay dafay sedd ca yàlla wa abrazahu ila rifqihi wa ma yassarahu ak li nga xam ne hmm. jàppanal na ko hmm. lawoo ñeel ko min rizqihi ci wërsëgam yooyu li muy jëriñoo ci lekk ak naan ak ci sol waaw hmm. ndax wa rizqu xaqan ma bihi yuntafau xalaalun aw makruhun aw mumtaniu loolu la borom ashalul masalik wax ngeen koy tuddee misbaahu salik waaye sharxa ba mooy misbaahu salik borom jawhara ne wa risqu inda alqawmi ma bihin tubic wa qiila la bal ma mulik wa ma tubic fa yarzuqu llahu alxalaala faclama wa yarzuqu almakruha walmuxarrama waaw lu ñu jëriñoo rek dagan na waa daganul wërsëg la wërsëg la kay bu daganu dafa yàkkamti rek wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala llahi rizquha wa ma yasarahu lahu min rizqihi wa allamahu te mu xamal ko maa lam yakun lum nekkutoon yaalamuhu di ko xam maa lam yakun lim nekkutoon yaalamu di ko xam wa allamaka maa lam takun taalam taalam wa kaana fadlullahi mosul wa kaana mosul dëñ fadlullahi ngëneelil yàlla alayhi ci doomu aadama aziman di aji màgg waaw yàlla moo ko yàlla nee na wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan mhm. waaw leen génnee ci biiru ndey yi booba xamagu leen mhm. dara allahu akbar waaye nag ma def ci yéen jumtuwaay yu ngeen mën a xamee mooy def naa ci yéen dégg def naa ci yéen gis wa jaala lakum sama wala busaara wala fida yes waaleykum salaam yes waja uh, yeah, just mm-hmm. give me let me finish um, uh, aha uh, uh-huh. alayhi azima waaw mm-hmm. mm-hmm. yàlla moo ñu xamal moo xam xam-xamu ilham la moo xam-xamu iktisaab la waaw xëy rek xàmmee yaay xàmmee baay xàmmee jegeñaale yi xàmmee xayawaan yi xàmmee ah. daruriyaat yi xàmmee mettit xàmmee neex waaw xàmmee neex xàmmee lu mbégte xàmmee njaxare li nga bëgg li nga bañ waaw ak dem ba xàmmee li li tax ñu bind la muy xàmmee yàlla waaw xàmmee yàlla mhm. xam nga imaam euh, ibn abi zeyd dafa baax dafa baax dafa bari xam-xam dégg nga ba waxam lépp dafa saf alquran ak sunna mhm. lu mu wax rek boo xoolee alquran gis delluwaay ba boo xoolee sunna des ne ko mhm. doomu aadama xamoon na démb biñ ko mm-hmm. sosee tey nag mu réer ñu dugal ci moom lii tax mu mën a fàttaliku démb mm-hmm. waaw ibn alxaddaat nee na nee naka la ko waxeeti eh, baytu ba dem na dina dikk mm-hmm. eh, tazakar jamili moo may fat waaye du tazakar jamili laa bëgg a wax tazakar jamili xiina eh, tadakkar jamili fiika boobu waaw yaa ayuha ruux mu ngoog yaa ayuha ruux hal tarda mujawaratan ala dawaami li hada almudnibi alkadiri alasta kunta wala jismun tusaakinuhu alasta fi xadaraati illahi faddakiri xata jucilta bi amrillahi fi qafasin li yubtalaaka fakun min xayri muxtabari hmm. waaw waaw oh, dama xamoon na moo tax alxuraan waskur rek la lay wax fàttalikul fàttalikul waaw mu ngi lay fàttali la xewoon alastu bi rabbikum ak la ca topp alo bala waaw bañ dugal la ci kaaf gi nga dem nga doon picc mu libre ñu xëy la dugal la ci kaafu yaram hmm. nga war a ànd ak waaw waaw moom ruux Cheikh Tidiane nag mu ne dañ ci dañ faa dugal ruux mu sa mu am safaa u nga war koo delloo yàlla ak safaa u googu am yu ko mën a gàllankoor nag eh, am yu ko mën a gàllankoor nag waaye ya koy gàllankoor seeni safaan ngay saxoo rek ba gàllankoor ga du am ba booy dajeeg yàlla danga nga dajeeg moom fekk ruux ga am safaaw suñu maam bu ñu alaajoo man ndaw wéy na wax jooju cheikh wax ci wax ji cheikh wax noonu wéy na ko ne arkaanuhu sumtun wa ju'un wa sa wa sahar arkaanuhu sumtun wa juucun wa sahar wa catashun wa xalwatun liman dakar min gayri ifraatin wala tafriti xayrul umuuri zina bi tawsiti waaw doo wax mukk lu dul wax ja dafa ñor te ñu war koo wax sumtun allah akbar waaw doo lekkit lu dul da ngaa xiif te boo xiifee bay lekkit doo su doo regg doo regg waaw nelawit doo ko baril li nga soxla rek ngay nelaw jaxasoog mbindeef yi doo ko def lu dul fa nga ko soxla allah akbar foo ngi tudd yàlla yaa ngi xalaat yàlla nee na yii nit ki saxoo dana tax mu ah. delloo yàlla ruux gi ak safaawu gam ñëwee woon ah, waaw hey allahu akbar wa fadlullahi ah. alayhi waaw ah, liggéey liggéey góorgóorlu dëgg ko taxa taxa man de. waaw ak tawfiq. safaaw googu buy dem nga delloo ko moog tawhid waaw. Ah, ak tawfiq laa wax tawfiq. <laughs> tawfiq tawfiq tawfiq sa yé sa yé. góor gi góor gi góor gi mu ne tawfiq dafay jafe ba benn yoon la dikk ci alxuraan. ca yàlla. waaw ah, tawfiq ilaahi nag lay wax ndax tawfiq munaafiq yi moom dëkk na beneen yoon ci alxuraan. ah waaw parce que boobu am na beneen. waaw tawfiq ilaahi wa ma tawfiqi illa billah. billah billah waaw bu dee naafiq yi nag ñoom ñoo doon wax ne in aradna illa ihsanan wa tawfiqan yàlla ne a ah, ah. déedéet ulaika alladina yaalamu allahu ma fi qulubihim fa arir anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligan xam naa ñun ñu ngi bëgg a julli ñu ngi bëgg ñu ngi bëgg a julli tisbaar waaw ñu taxaw fii xam naa ne bu beneen yoonee nag ñu gën a gaawal tuuti firi mi maanaam xam-xam man sa waxu mën a dara waaye liñ ma chara bi rek boobu moom boobu lañ may doflooyee est-ce que kon nag alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam fi ali maladu nas maladu fi دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام مع ترك المحال جواد